وليا وناصرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك بفاتية الفاتئ فتأتام وبقاتمية القاتم أسن القتام اللهم إنا نسألك من خير كل آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما خرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما خرب إليها من قول وعمل allahuma inna nasaluka awfa wala aafiyata walmuafata daahimata fi ddiini wadduniya wal axirati allahuma inna nasaluka ridaaka wa ridal nabiyika wa ridal asyaaqi wa ridal walidayn allahuma ajal ma nuhibu fi ma tuhibu wa tarda allahuma ajal fi ikhtiyaarika istiraarana wala tajal ila ilayka ittirarana يا ربنا يا خالق العوالم خل بيننا وبين كل ظالم وأجل لكل من إلينا أحسنا وجاز عنا جزاء الأحسنا اللهم ارفع عنا الجهد والجمع وريا واكشفنا من البلاء ما لا يشفيه خير اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أتهنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانظرنا على القوم الكافرين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 allahuma igfir li hayina wa mayitina wa kabirina wa zakirina wa zakarina wa unsana wa hadirina wa xaibina wa horrina wa habdina wa taayina wa asina allahuma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayidina muhammad alladi tanalu bihi uquda wa tanfariju bihi kurba wa tuqda bihi awahiju wa tanalu bihi raqaib usna alkhawatimu wa yustaza alkhamamu biwajhi karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bihaddadin كل معلوم لك يا رب العالمين اللهم يا عي يا قيوم أعي قلوبنا بخير رحمتك ونوّرها بأنوار معرفتك وزينها بذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإنك الملك المنان الكريم ذو الجلال والإكرام الذي من دعاك به أجبته ومن سألك به أعطيته أن تعطيني رزقا واسعا وعلما نافعا وأمرا طويلا جليلا ومالا جسيلا وسعة بدني ومحبة في خلقي اللهم يا مولاي ألف القلوب والأبصار ألف بيني وبين عبادك صالحين يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين خلفك أجمعين وهب لنا يا رب قبول سيدنا سليمان وإقبال سيدنا يوسف عليه السلام وإجابة دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم maa tuula amri wa sihatan badani falama rahaynaahu akbarna wa xatahna aydiyawna wa qulna walillahi ma wa bashara inna wa ila malaku karim yuhibunahum ka billahi walladina amanu ashaddu balillahi wa alqaytu alayka mahabbata minni wa nadana ma fi sudurihim min xilin ixwanan ada allahu an yajala baynakum wa bayna alladina adaytum minhu mawadatan wala uqadirun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 القاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار عظيم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 بصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب الحمد لله رب العالمين وناصرنا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك بفاتية الفاتئ فتأتام وبقاتمية القاتم أسن القتام اللهم إنا نسألك من خير كل آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما خرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك عوف والعافية والمعافاة الداعمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رداك ورضا نبيك ورضا الأشياق ورضا الوالدين اللهم اجعل ما نهيب فيما تهيب وتردى اللهم اجعل في اختيارك استرارنا ولا تجعل إلى إليك اضطرارنا يا ربنا يا خالق العوالم خل بيننا وبين كل ظالم وأجل لكل من إلينا أحسنا وجاز عنا جزاء الأحسنا اللهم ارفع عنا الجهد والجمع وريا واكشفنا من البلاء ما لا يفشو خير اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أتهنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانظرنا على القوم الكافرين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 allahuma ixfir li hayina wa mayitina wa kabirina wa zakirina wa zakarina wa unsaana wa haadirina wa xaa'ibina wa horrina wa habdina wa taa'ina wa aasina allahumma salli salaatan kaamilatan wa sallim salaaman taaman ala sayyidina muhammad alladi tanaalu bihi uqda wa tanfariju bihi kurba wa tuqda bihi awaahiju wa tanaalu bihi raqaa'ib wa husna alxawaatimu wa yustaza alxamaamu bi wajhi karimi wa ala aalihi wa sahbihi fi kulli lamaatin wa nafasin bihaddadin kulla maalumin لك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم أعي قلوبنا بخير رحمتك ونوّرها بأنوار معرفتك وزينها بذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإنك الملك المنان الكريم ذو الجلال والإكرام الذي من دعاك به أجبته ومن سألك به أعطيته أن تعطيني رزقا واسعا وعلما نافعا وأمرا طويلا ومالا جسيلا وسعة بدني ومعبة في خلقي اللهم يا مولاي ألف القلوب والأبصار ألف بيني وبين عبادك صالحين يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين خلفك أجمعين وهب لنا يا رب rabbi qubula saydina suleyman wa iqbala saydina yusufa alayhi salaam wa ijabata daawata saydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ma tuula amri wa sihatan badani falama rahaynahu akbarna wa xatahna aydiyawna wa qulna walillahi ma wa bashara inna wa ila malaku karim yuhibunahum ka billahi walladina amanu ashaddu balillahi wa alqaytu alayka mahabbata minni wa ونزعنا ما في صدورهم من خيل إخوانا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم قال مالك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك لدينا مكين أمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى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 wax dëgg yàlla tey yàlla yombal lépp diggante dem ak tey ñu àndoon ak yow ak mbooloo mi ak mbooloo mi dem ziar yi di moom mooy doomi bàyyi di mm-hmm. Cheikh Akhib Ibrahim mu kattandu la yow ak sa mbooloo euh, ndeysaan jëf ji daw na yaram daal <laughs> tey mm-hmm. muy loo xam ne tawféex la vraiment chamam uh-huh, dëgg la alhamdulilahi rabbil alamin <clears throat> wa sallallahu wa sallama ala man rahmatan lil alamin seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi tahibina taayirin alhamdulillah ñu ngi sant yàlla beneen yoon ànd ak na dañuñ benn yoon di ko sant waaye yàlla dafay feeñ feeñ waay yoo xam ne léegoo léegi dafay gën rafetante waaye moo feeñ fépp waaye ci fan yi ci waxtu wi ci bés yi fan yi ñu ne yàlla daf cee feeñ ne dànk yàlla dañ koy gis yàlla dañ koy gis seydina alin karamallahu waccu dafa wax ne raxaytu rabbi raxaytu rabbi bi ayni qalbi fa qultu laa shakka mu ne anta ant parce que boobu daf na yenentu sallallahu alayhi wa sallam damaa bëgg nga tegtal ma damaa bëgg a gis yàlla nga tegtal ma yoon wi jëm ci yàlla yenentu na ko waxal laa ilaha illa allah mu wax ko waaye mu ngi ko waxee ci làmmiñ mu ne yenentu gisuma dara yenentu bi ne ko ne ko waxaatal laa ilaha illa mu waxaat ko mu ne ko gisuma dara yenentu ne kon waxal laa ilaa illallah te nga dëggu dëggal sell sellal daldi di bëgg bim dajalee loolu ci xolam bi ci la wax li ma wax ni raaytu rabbi bi ay ni qalbi fa qultu laa shakka anta anta gis naa yàlla la wax ci samay bëtu xol waaye amul sikk ne yow la li ma gis yow la yow la Moussa bam ne yàlla dama laa bëgg a gis ci doj bi moom itam kazaalik ko doj ba tasaaroo ñu ne doj bi daa tasaar bi mu gisee yàlla dafa xam waaye doj bi ba léegi mu ngi fa kon yàlla dañ koy gis dañ koy xam dañ koy yëg tey nag yàlla daf ne fàng buur moo tax menet tey luñ bëgg dafay am luñ wax dafay am luñ dégg suñ nopp yi sax loolu dafay am bésu jamaal la tey doo gis nit ku ñaaw sax ñëpp seen kanam yi ñu ngi ci monte leeru yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit dana la ñëw ziyaare si sax fekk ne agresseur la waaye leeru yenentu mooy tapp ci jëmmam yenentu moom moo tax yàlla bind xaalam bi kooku lañ doon gane tey gane see moom lañuy ñuy tertu weer wi teru na waaye ci fajaru tey gi fukki fan ak ñaari ci fajar ga moo tax ma ne gàmmu 2022 nag am na lu ma ci waxoon buur li ma yàlla dana yewenal say mbir ak bu man di doon. alhamdulilah léegi nag euh, depuis weer yëpp ñu ci gàmmu gi léegi ñu ngi ci njoloxtaan gi lenn moo ma desoon ci gàmmu gi mooy dem ziyaara ji sama sëriñ xam ne moo ñuy tëbb moom lañuy ñuy mooy suñu weeruwaay te moom lañ ànd ak te ñu ngi ànd ak moom dama bëgg a wan nit ñi ne njub dafa baax jub nit bu jubut am na loo xam ne ñimewu ko jërëjëf yal na yàlla fay la ci sa dund dootoo ñàkk jox nga ma ren 2000 nañ xool feeg déwén xaw luy sa capital mën naa ce jaar nag waaye jaru ko ndax karaama taxul ñaa jóg waaw mu jox na ma ñaari junne képp ku ma jox xaalis moom ci jamono yi doo ko ñàkk parce que sëriñ bi moo ma jox loxoom bi loxoom bu tedd boobu la ma jox sànq ba pare jox ma jox ma jox ko suma bopp bi waaw waaw buur lépp liñ bëggoon a def yëpp def nañ ko ba def lu ko rab lu lu ko ëpp nit ñi ñëw nañ ci jàmm dinañ dellu ci jàmm <laughs> <laughs> nit ñi ñëw nañ ci jàmm dinañ dellu ci jàmm ak yóbbaale bépp yiw nag ak faju aajo boo xam ne bu fi nit taxawati te ne ma ñaanal ma buñ jógee fii kum neex man ngaa ñibbi buñ jógee fii kum man ngaa waaye yow Pape yow da ngay man ba fajar gi xaar waaw waaye kudun moom mii kum neex man naa ñibbi Abdou Aziz yow itam da ngay man waaw yow buur yeewi naa la bu fekkee télé nga bëgg baal xel na di nga ko samp. Ah, bi ma ànd ak yow laa xam ne lu ma bëgg dinaa ko am. barke Seydou Mouhamed Moussa waaw di nga ko am waaw. man du ma ànd ak ragal. waaw du ma dof du ma jaay. waaw di nga ko am ci dëkk bi laa dëkk. waaw dëgg xam naa ku yàlla tuyal. dëgg la xam naa ku yàlla demal. dëgg xam naa ku yàlla téy. dëgg la bi ma ànd ak yow laa xam ne. dëgg la newoon naa dinaa am oto bu rafet. <laughs> dinaa am ñetteel gërëm ma dese am naa télé. lépp laay am barke Seydou Moussa kër dinañ la ko may. billahi rek billaay dinañ la ko may. sëriñ bi ba ko joxee sa micro bi ma ne ko mu ne lii lan la ñu ne ko dafa bëgg doon tëb kii lu mu dégg mu am. waa jooju waa jooju. waa jooju li may dénkaane mooy jub ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb di wax na buur nag man nag ku yàkkamti doo ànd ak man. ku yàkkamti béboo nga bàyyi ma léegi ku ragal du ànd ak man ku siis du ànd ak man ku xolam yaatuwul du ànd ak man ku tabewul du ànd ak man ku yokkat du ànd ak man ndax man ku ànd ak man dinaa la nattu ndax man dama dañ ma nattu man ci lu bëri nag heure bu ma toggee ak ñi ma ànd nag danaa leen ko wax ma leen man dama dund jalaal dund jalaal dund jalaal ba ne waa ji doy na nag léegi waaw léegi nag fexeel neexal mbir yi luñ bëgg mu am ñi nga xaalis damay tëdd dina nelaw sax di ko am léegi waaw te lépp lu ma ci soxla ba xas tudd ko ci sam la sama làmmiñ bi dama koy am barke Baay Ñas te képp ku ma jox man man xaalis nit du may jox xaalis di ñàkk xaalis bukk kii bi ma ko xamee yàggul oto bii may dawal moo ma ko jox treize millions lay jar nouveau modèle la kere bi muy toog ak man benn wax laa ko wax dem bi ma koy woowaat na ko kaay yóbbu dama doon takki jabar jëflantuuma ak moom dara boobu sax waaye moom booba yàlla balancé na ko ne man dama koy ñaanal xam naa ko te biñ xamanteeg léegi dama koy woo ba ñëw ma jaar ci lim nekk ci xelam mi ma wax ko ko billaay mi ngi nii fekkee damay fen nee ma dangay ngay fen te lii ma ko xamee nit moo am problème tribunal quinze oto procureur yor ko teg ci tànkam laaj ko nee na 4 oto yi la ko laaj mu ñëw sama kër am rendez-vous oto yi gën a baax la jël waa ji ne ko loolu manuma ko 10 heures ma recevoir ko mu ne ma falaa jom 15 ma bind ci kanamam na ko demal di nga jot coote yi te moom boo mooy tuur benn sax du am 19 heures la ma waaji woo maa ngi ànd suma maam ci oto suma benn maam bu ñu naan Aliou Jànq seede la waa ji ne ma allahu akbar sëriñ maamu doon nit ma ne ko lan la mu ne ma procureur bi far yàlloo yàlla sax moom dafa amut benn ndax nee na ma fi ma toog di wax ak moom dafa toog rek jot code fii appel ci appel xalifa laayee ni xam nga yàlla lépp lu muy def nag dafa am fu ko jaar allo mu ne dafa am beneen procureur bu ko wo na ko en fait nangam ñuy wax ñu coupé waa ji ne sew mel ni kuñ rey yaram xam ne bert na mu ne ko dafa am koo wax ak coote yi mu ne ko tey ah déedéet de kan kay naa mu ne ko xanaa suñu xalifa laayaan bi nangam waa na ko jëlal sa caabi jëlal l'essentiel daal dangay ngay fay caution danañ la jox dix oto cinq oto yi feeg vingt jours nga ñëw jël si mu woo ma ne ma bi ak la ca gannaaw loolu waaw billaahi waaw Amadou Ba mii falu ministre biñ ne suba la rakkam toog ci sama ron benn baat laa ko li ma gis mu ne dina am ku ñuy wax El Hadj Diassé moo ko booleeg man moom la rakk moom moo doon ñaanal rakkam mu woo ko télé ma téléphone ndax moom kooku moo di ñaar moo Yékini mii di daan ni di tër waa jooju ku garaaw la waa ju El Hadj bi may wax nii nettalil na ma ba nettalil ma mag ñi nga xam ne dañuy lekk nit fii ci Sandiara moom mu fekkee ko moom rek moo ko xoolee dama daan ko yow ci nga bokk waaw dafay toog ci sama ron ci jamono yi bi ma ko wax na ko Macky Sall élection yi dina am majorité yow mi dañoo toog bi ma la ko wax biñ ne suba boobu maa ngi café bi ma la ko wax ca suba boobu maa ngi kafe dorom allo buur mu ne Macky bu subaa wallaahi dana leen dina leen lim doon def dina gën a wax sëñ biñ ne jour bi nit ñi di zible nit ñi zible nañ ba pare waa yeewi toog ca suba ga ñëpp mel ni kuñ dóor gannaaw suba gi président ñëw gaña te dama ne la woon nag wax ji yëpp ci làmmañ leen ba ñu waxee ba pare te xam nga nu ñu def point de presse lañ def pare li ma bëgg wax bokk naa ci famille bu baax am waajur yu baax ñuy ay waliwu yàlla buur man ragaluma ku ragal du ànd ak man ku yàkkamti du ànd ak man ku tàppet du ànd ak man waaw ndax man damay mel nu ne léegoo léegi mën naa soppaliku ba mu mel ni du man loolu nag maa ngi ñi dëkkuñ léegi sama mbokk yi maak ñoom dëkkatuñ am na ñoo xam ne du man ñi ma mu koo wan waaye am na ñoo xam ne sañ naa leen wan lu bari ci biir néeg nit su yëkkatee alalam jox la ko am na lu mu yëg nit su la toppee benn fan am na lu mu yëg rawatina nag ngay li gën a garaaw ci àddina ngay wax internet Sénégal qualification coupe du monde man maay seul sëriñ bu tëdd sama kaw lal une matin ma buur buuru allo mu ne ma waaw ma ne ko Sénégal dina gagné Égypte match bu metti lay doon waaye dinañ ko gagné qualification coupe du monde bi nit ñi yaakaaroon duñ ko dem na sotti la bi muy laam-laamee naan ma ey eh, maamu nangam xaar ma ko buur mu ne Anta Diabar mu defal main libre ma ne ko léegi jarul loolu sax coupeel ma ojo ko ma ojo ko ma ne ko def ci sama photo ma naa dugal ko ci internet bi ci guddi gi balaa suba Abdou Aziz mii seetaan na vidéo bi moom moom bokk na ci ñi nga xam ne bu ma ne woon yàlla dana lem asamaan si suba moom nee na moom pare na day wax njabootam gi nañ wàcc parce que am na fu jaar ak keneen ak keneen yooyu du ay làmbatu ndax jamono bi lépp loo xam ne yaa koy wax bu fekkee du dëgg préparé ko ndax léegi match boobu ah sax xam nga ne biñ demee série sax comment am nañu jot a vaar ñu ma jot a vaar. man mii boobu. Ah. ba léegi seetaan ma ko bi ma ko waxee ci bésu match bi dama doon nelaw final bi ba ñuy julli fajar Égypte moo ñu waroon gagné ma ciy leetoo di ci leetoo. ba ci fajar gi nangu ma jël ma ne ko Égypte nag jëloon na ndam li di dem waaye waññi nañ ko de jeex na takk dañuy gañ bëri na kilifa yoo xam ne dañ ma topp ay at juróomi at wala lu ko ëpp am na ñoo xam nit léegi duñ la déglu benn fan rek ñëw ci yow dinañ la gës yebal ci yow man lu ne gis naa ko am na ñoo xam ne sax ñi mu maa tudd sax topp nañ ma ay at xam ne kii daal ci lim ne rek la ne ndax man sama kër boo fa ñëwee boo ma fekkee souverainement moom laa lay recevoir ah doonal ku la neex soo ma fekkee ci sama biir njaboot ay daw dugg ci néeg bi naa la tëjal bunt bi maa ngi ñëw mukk man du ma nit boobu su ma nekk toon ci njub duma ma fi yabal nii du ma wax paap mii ñëwal sama kër buur su ma newoon ci njub liggéey la ñuy séq doo am accès ci suma biit kër ak Abdou asis mii France la jógee c'est un intellectuel xam na bu baax àddina ak yeneen ak yeneen dama bokk mag ñoo xam ne ñoom dafa am ñun yare soo waxul dëgg Pape Seck mële day taxaw ne la li nga def du dëgg du yoon Omar mii sama mag la boo defu dëgg bu la mënta wax dara daf lay mere dañoo bokk ci famille boo xam ne duñ jaayante yarewuñ ñu loolu tey jii boo gisee te buñ tam nangul ma de maa ñoom bëre naa ñoom dama doon ñëw ñëpp boycott newut ci dara ngeen sëriñ ñu la sëriñ lan ñëpp nag benn nit a ciy nangu nga dugg sa néeg jooy waaye nga xam ne yàlla daf laa bëgg a dimbale parce que suñ tëboon tëb rek ñu nangul la bu boobaa dootoo dootoo jaamu yàlla yi dootoo ko def li ngay mujj def mooy ci pexe ngay mujj nekk bokk naa ci famille boo xam ne duñ lekk lu leewut doxuñ ci ndax kenn tappalewu ci ñoom ñëpp a ngi liggéey sama ku mel ni Elimane ku ci am bac sax mu ngi commencé wut bourse pour nga dem France man mii def nañ pexe bu ne jaay nañ ay or ay takkaay waaye sama gars yi bañ rek na yow du jàng nga war jëriñ def nañ pexe bu ne am na at boo xam ne kër ma jëbel ngeen dégg sa jàngee naa ko jàng naa ba seconde am na loo xam ne su ma ko waxoon tey ñu ne lu dëgg man compo man jàng naa compo jot dew ma compo ma jël premier à sembaaw billaahi lesi la dara daga classe bi mu ngi nekk Abdoulaye cew su ngeen bëggee ma jox leen numéro ngeen woo ko léegi mu ngi France balaa muy dem mu ngi ci sama ron moom moo ma woon ne ma yow moyenne 16 nga am nu mu demee ma ne ko xaw ma ci dara l'essentiel daal maa ngi doon jàng billaahi lazi li may wax ni su fekkee du dëgg yàlla naa dee tey moo tax ma ne mbiri ay karaama yi du du mbiri yàlla dafay maye nañ nangulante nañ nangulante man buur mii am na foo xam ne suñu fa demee du ma wax biñ demee léegi ci sëriñ bi man sëriñ bi su ma ko gisee xaw ma lan laay wax lan laay wax damay damay fóon loxoom bi xool ko rek man de sax fu may ne ci moom moo tax ma buur waxal sëriñ bi ñun ay doomam leen rek taalibeem lan moo tax sëriñ bi su ne ma maamun nanga def man sama na dafay tukki man ku mel ni sëriñ Aaxu muy jaar sama tur man mu bon mi nga xam ne duma ma daal sama tur maamun nanga nga def ah waxtu ma nuyoo sama doom Cheikh Ibrahima ana Cheikh Ibrahima ba deful dara balaa may am doom hmm? bi may tuddal sama doom boobu ñi ngi ci corona bi digg corona bi waaw boobu lañ aaye manifestation mu taal otoom bi fajar ñëw toog fii ci ëtt bi tuddal ma doom dëkk bi yem na nu mu demee maa leen mbir du nu deme bëgg-bëgg la rek bi xaddiri maa tuxibu tanaalu am daadoo fal xaw maa daa xaalu kem ni nga bëggee rek noon ngay jotee sa càkku ceeb gàmmu gi ku amutoon taw feex doo ci teew pap mii dëj la demoon démb manu ko mënoon naa toog waaye yàlla bëgg gi mu ko bëgg moo tax nee na dee dina ñëw dem naa sax banaax ne ah, mii daf maa ruus rek tam tam léegi moo mën a sëriñ maa ngi woon ci yoon bi damaa paan waaye du fen nit ku ma neex la kii ndax lu tax du fen xam nga sëriñ dafa garaaw léegoo léeg nit ñëw nga woo ko ne ko kaay yaa def nangam xam na ne fenu làmbatuma ma ma maa ko def de dama ko cee testé ñetti yoon ndax nit man balaa maa commencé xóot danaa dugg ci sa biir jëmm ji ba nga xam ne boo tëddoon ci jigéen joo xam ne du sa jabar sax mën naa laa war téléphone la wàcc ko ndax def naa ko billaahi lazi laa ilaaha illaa ñi fi ñëw nii yëpp am na fu ma jaar ak ñoom jabaru la mooy togg Balla sama xarit la mu may dégg jaar naa moom fu ne sama xarit la waaye tey day wax ne mu ne ma ni gannaaw Cheikh Mamoun Insa mi ma tarbe yaay suma yaakaar te bàyyi mun a ñetti ñii bàyyi mooy wax radiyallahu anhu mun a ñetti ñii jafe na ñu nangul ni yàlla dimbale leen ñu nangul sëriñ ñu ne ko kan kan mun a jabar parce que jabar guddi bu jotee nga futteeku comme ne sa yaay juree mu lay def loolu ne moo tax sëriñ léegoo buy toog ko man sa kilifa laa loolu jarul wax jabar jabar yàllaa koy defal tawféex rek mu nangul la bu ko yàlla defalul tawféex jëkkër ak jabar lay doon mu seyal la barke bi moom moo koy liggéey doom danaan suma bàyyi la bu demee ba màgg gis taalibee ñëw ci pàppam buñ ko joxee million mu fexe ñëw xool pàppa ndax doom dafa sax ci xol yonent bi dafa bëggoon doom baay mi radiyallahu anhu dafa bëggoon doom kuy toog fi naan sëriñ si nooy yàlla leen doon bëgguñ ak ñoo bëgg doom gis nga ku laalaan seen doom yi boolaa ay boolaalee seen doom doom dafa sax ci xol ndax doom ña mooy ñaareelu tëjjaliyaatu baayam yow dañoo génne ci sa jëmm ji bind ci di ci génne di bind di ci génnee am lu ñu la sampal mission boobu du fay moo tax yàlla bu bëggee nit mission du fay daf koy may njaboot su bëggee fay mbiram daf koy du koy xañ njaboot loo doon doon waliwu boo dee duñ la gaaw a fàttaliku kon ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi ci gàmmu gàmm nag li ba baay wax mooy siira yenentu sallallahu alayhi wa sallam guddi tey ku ci man ci julli ci yenentu sallallahu alayhi wa sallam def ko bàyyi mun a bil xiila wal xaala wa bi salaatul faatihi li maa uxliq mu ne xaala xiila yi ay diw nee na maa ngi koy wax démb ma ne léegi senegal nit ñi dañoo ñàkk fayda lu tax ñu ñàkk fayda da gis da ngay toog génn wala nga dugg soota nekk ci jaamu yàlla dégg benn paabu sax si sikkiñ waxtu julli war a jot moo la oh sëñ bi tey dañ maa dóor tey antenne tudd benn tur antenne sa waay yàq na sama marché bi yëpp warutoon dugal kii kooku dafa ñàkk fayda kooku ci liggéeyam la ne yooyu yëpp amul njëriñ foo foo yi amul njëriñ gis nga ne àddina bii danga koy xool tey këtt këtt nañ bay bugg a dee pour nit ñi lekk naan mais yow buñ ko tegee sa doo lekk bon bon yi li muy bari ginaar yi li muy neex yàpp yu ñaar benn morso nga ciy lekk suur këll hmm? boo ci lekkee lu bari soo moytu yaa ngi wut foo tëdd nelaw ah kon nag nañ delluwaat ci yàlla nañ dagal yàlla maa ngi koy dénkaane maa ngi wax ne képp koo xam ne teew na fi rawatina kër gii nga xam ne bokk na ci ponk dëkk bi aajo wu fu mën a indi yàlla dana ko faj burut mooy yàlla ak yàqu ñii ñibbi danañ dellu ci jàmm ñi ñëw seen aajo yëpp dana faju pap nañ xool ren ba déwén bu ne yow laa jox micro bi nga gis xar baax yi la yàlla wat incha allahu xam naa ne yàlla dana taal sa mbir yëpp sëriñ bi dañoo dem fekk ko muy wasifa hmm? ñu taxaw ko ba mu pare mu génn ci wasifa rek bi mu ne salaamaaleykum rek def na nii yam ci ñun ñu ñëw balaa moo nuyu kenn ñu ne ko Mamour Seck sa taalibe mu ne Mamour xam naa ko xam nga lu ma xàmmeem balaa mu maa li lu ma xàmmeem xit ma sëriñ bi dama daan def waxtu mu gi dama koy jox xaalis ba am na jour fajar laa dem jugee gàmmu jëppal ziyaar ji ko xaw ma yaa naa su amoon lu ñu fàtte daal ma yóbbu fekk mu ngi toog kër Cheikh Maye si Sacré Cœur ma yëkkati xaalis jox ko yàggu dara ñu présenté ma ko ñu gën fekk xam ne ma ñoo ko maam man ay kii xam naa ko moom da may jox xaalis rek moo tax man du ma ñàkk xaalis ma wax leen ko ne man du ma ñàkk xaalis man su may laaj nit xaalis nii dama koo bëgg jëriñ rek waaye ñi ma jege xam ma bu ngeen bëggee chaque jour su ma bëggee dara fi ma toog ak nit sama mag jële mas naa koo noggati yow taalibe sama yaay bi muy ñëw màgg ñu toog ci maga rek mu ne ma ne ko billaahi mën naa lekk sa xaalis mu ne ma jox ma ko nga seet mu jox ma ko ma lu muy mu ne ma ay wax la rek ma bind ci rek toog def ci tànk bi nii seetaan ko ñu toog di waxtaan waxtaan ci mbiru xam ba ci yàgg yaram bi tàng mu ne ma seetal ma <laughs> ma ne ko vingt mille laay seetal <laughs> mu jox <laughs> ah, mu jox ma vingt ma dugg ci néeg bi nag di ko wax lu du dëñ wax ko sarax ñu doon ko wax mu génn ay billaahi bés ni ki tey jébbal la yéen kii yéen da di fontu ma ne ko ah, mag mu ñàkk kañaan la ku baax koo xam ne nii wax dëgg yàlla man def ma yéem gis nga fi mu événement nii bëggul booba léegi bi ngeen ñëwee ana ñoom paap bu leen kenn xatal nañ lekk ba suur ah Elimane Mële mu nga ne gis nga du sol yére ji nga li nga ko gis ne du sol yére suma mag yi noonu la déggoo jigéen ñi nee naa leen gàmmu nii dañu yàlla def leen dimbale léegi bañ ma amee mais na ñaan leen moo yàgg fi nag fu mu te nii bu njëkk ba dañ daan sonn kenn du leen dimbale léegi nu ñuy def bu ñu soxlaa lu ñu yëkkati rek sonn dañ ne ah sëriñ doo ñu dimbale rek ma jàpp benn bitel yëkkati rek ñëpp daw nga gis na yàlla dafay maye daal ci cër cër la waaye am na foo xam ne suñ fa tollee man maay nekk seen taalibe waaw am na loo xam ne fu ñu fa man damay futti sama mbubu man samay mag wan naa leen cër bu jox naa leen cër bu ma sëkk buñ ma waxut toogal ci kaw duma toog ci kaw buñ ma waxut waxal duma wax ñoom xam nañ loolu moo tax lépp lu may defit damay dem ca ginnaaw di liggéey liggéey naa ay at di jaamu yàlla di ñëw gàmmu si ànd ak ay nit su ma ñëwee maa ngi nit ñee yam waaye tey da ngay gis ne sax dañuy ñëw naa sëñ bi lu ñuy togg ndax lii baax na nga gis ne kon dëgg lu seen naa Omar waxoon dëgg jafe na mu suufeel ma fen di ma yëkkati léegi nag jamono bii boo nee ci naxante yaakaar nañ ne waaye naxante boo ci nee yàgg-yàgg fay kon buur fi may tëjee mooy suñ site bii di Bprod beeboo na nit ñi daw ñëw ndax dana barke micro bii sëriñ bi téye na ko te ku ne dana ko bëgg a téye yow yaay bañ rek bu yàggut ngay liggéey ñu lay firaa nga commencé ngay tiit ma la buur yow yàlla dalaa bëgg a dimbal yàlla bu la bëggee dimbal dul teg du yaa ngi nii bàyyil nga toog loolu matul ñaari weer yaa ngi doon dawal daasiya kur la gis na la clando ngay mer tey ah ah yaa ngi nii ah bu yàggu yu ndaay sonata ngay dawal kañ la la koy nit yàggul te loolu yëpp ñaan yàlla moo ko nii moom mi lu tax ma bëgg ko gëm euh, fonk ko nit ñi man dañu fonk damay kompaloo ak moom sax mais déedéet gis nga nit ñuy toogee léegoo la day am soxla ñëw guddi ci ñaari nit mu xam ne ma xam ne kii nit la maamun mu ne ma nag ma ñaanal yàlla dem naa ba bokk ci njabootam ku feebar këram ku feebar mu ne maamun ku feebar dem naa ba ci papaam bi ko jur sax papaam man daf maa gëm man damay rus sax papaam loo toog day toog ne ko maamun mii mu ne ko waaw ah, papa man duma ma dara mun naa ah, man mag laa yàgg naa fi mais tey alhamdulilah suñ ànd bi wax naa ko keroog keroog bi ma yàlla indi leen daamaar ma ne ko di nga am ndax ànd nag ànd lay firi su fekkee ne man yokku man maa yokk yoo yokkoo ba nga ba ma xam ne jëriñu ma la dañuy naxan waaw <laughs> bisimilah waaw <laughs> waaw loolu nag sant yàlla la événement bi ba mu ñëwee ci kër gi la bokk balaa ngeen di ñëw moom mooy xëttal waa kër gi fi nga war a dal ah fonk la lool loolu nag cër la yàlla la ko may te yàlla nag lum narta def du ko commencé bu ko daggee rek yow yaa ba yoon bi waaye yoon wi nga teg ba ñu lay teral bésu gàmmu yonentu sallallahu alayhi wa sallam nga ñëw ba nga ñëwee man papa ba ma gëstoo sama doom bi waaye dama ana pap yow rek laa laaj teg la na ci roon pap bi yaa ngi wéeru tey ah waaw nga gis na ku bëgg ji ku bëgg góob dangay ji ku ji rek góob léegi nag nit ñi dañuy wax ne ah sëriñ ci xaalis lañ bëgg du loolu du loolu nit lum ji rek lay am gis nga nit léegoo léeg nga am mbootu yàlla boo xam ne ni dangaa liggéey liggéey nit ñi naan dana torox kii du am dara fekk li nga soxla boo ko yoree këru la boo xam ne loo dóor rek mu mokk man su may wax chaque jour damay am fierté ndax heure bu ma gëstoo dana am ku ma mën a seede gis nga kii dootu tardé gàmm man maa ko takkale woon jabar pape mi oto moo ma yóbbu yàlla ji taw taw rëy ak xéwal wallaahi man waaw muy taw fi waaye gis nga daaw gàmm gu la ñaan ma ne ko bu dewee da danga yokk danga raw say morom ren mu ngi ci appartement am takk jawaram nekk responsable te fu mu doon nii ñu bëreen ko soxla sëriñ Mbaye Thiam waxtu nekk mu woolu ko mu ngi ci ay mbiram duma la ñaanal li ma wax nit ñi laa wax li nga bëgg yéene ko fas ko indaale ko ci gàmm gi jarut ku indaale ko li nga indaale fii moom nga yóbbaale fajut aajo loolu amut ay sikk man maa ko wax man maa wax loolu man maamu Seck maa wax loolu xam naa fi ma ko teg tan soxla yëpp dana faj ñi war ñëw ñi war a ñëw rek ñoo ñëw gisoo njéeme léegi la ma yónnee message dama la dama laa bëggoon defal surprise taximaan bi ma waroon a indi moo xëy paan ma ne ko da ngaa tàggoowul ndigal dafa li ma bëggoon a bett moo tax yàlla na sëriñ kenn du ko bett waaw moo tax ñëwoo waaye macha allah muy nit ku baax moom itam njéeme bëgg ma Abdou Aziz maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant maa ngi gërëm sama yaay ñaan yàlla wéral ko ci barke sëriñ aax bu yàggal ko fi lool ak sumay mbooloo mi mag ak sumay rakk maa ngi leen di gërëm yéen ñi ñëpp buur ñëpp laay gërëm foofu lay tëjee maa ngi gërëm sama soxna nga xam ne moom itam mu ngi may dimbale nit ñi nag léegi booy gërëm sa soxna ñoo daf koo nopp ba ëpp wala daf koo ragal yeneen tu moo njëkk dëggal loolu annisaay minal ayaati alwadud loolu la yenentu wax mun a jigéen jabar dafa war a nekk ca seytaane am na ustaas bu reeru mu ne jabar fekk aggut la ci heure boo jàppoo mu romb la sa jàppuli toj des naa mat waxin la waxin la waxin la xaw ma nit ñi danañ dégg waxin la dafay tegtal ne doo ñaal doo njaalo doo mooy yàlla te yooyu yëpp dafay dagg wilaaya fo dafay tàddeel nit dafay lëndëmal nit dafay ñaawal nit dafay gàttal fan baaxul yal nañu yàlla xiit ci njub fami cekkeen yëpp ñu ngi fi yëg nañ ñun ñëpp yokkute ndax loolu lañ ma wax de ah, wala paap du loolu lay wax ne yëg nañ yokkute yal na ko yàlla saxal yàlla na ko yàlla saxal maa ngi leen di ñaanal bu baax pap yàlla guddal seen fan mais le yow sax wax naa léegi coote bi ne la bu la neexee laajal mairie wàkku ngóona man maa la ko wax laaj ko boo ko laajee nga xam ne Baye Niass rek mooy dëgg laaj ko waaye waxuma yaa fës ma laajal mairie bi ñu jox la ko laa wax loolu kay jeexal na wax bu ma wax ay kër man commune laa laaj loo waaw ah jeex na tàkk alhamdulilah kon nag ñu ñaan euh, fu mu toll ni buñ paree ñu reer ñi mën a toog wérde wérde ñi ma bëgg na ñu ne sama wet ci guddi gi maak ñoom xam naa li ma namm ci ñoom nañ ne sama wet yow moom <laughs> waaw yow moom jéggal naa la ndax ndakaaru ñu ngi lay xaar euh, site bi nag maa ngi leen di wax ñi nga xam ne ñu ngi xaar jal ñu lay woo nañ xaar ba ginnaaw gàmmuwaat fii ba lundi prochaine wala maar le 17 wala le 18 ci laay ñëwaat ndakaaru incha allah mu ñëwee nag continuer jaamu yàlla waaye nag na xel mi dal lii tax soxlaay nit faju du mbind yu ñuul yii loolu dafay dalal xel loolu dafay dalal xel donc sëriñ yëpp nag laa la sëriñ fiñ koy tàmponalee loolu moog boromam rek ñoo koy fekk waaw sëriñ bu sëriñ dëgg bu ko yàlla maye lépp lu mu wax rek xelam mi da ci dal waaye nit ñi dañoo toll ci jamono boo xam ne soo joxul nit lu ñuul mbind mu ñuul xel daal <laughs> xel mbir mi gën naa yomb loolu waaw man doomi daara laa sama yu gàtt la yoroon sama papa yaasin sóoratu yaasin amul lu dul ci def cee am jagle ba pare mokkal alxuraan mokkal goo xam ne ba léegi jurógu doomam te ku ma taaj mu tëri këla seen naa loo ngi ne rek maam baaboo nii ñëpp ay afis alxuraan la seen naa omar a ngi nii téyeer la mais wax chaque semaine mu wàccee kaamil moom dong nag laa wax mi ngi nii téyeer la chaque semaine balaa muy wàcc guddi dana jàng kaamil billaahi léegi mi ngi nii du ma fen waxuma pour tagg suma bopp buur ñi ma fii nii nii ay gan la ñi ngi xool ñi ngi gis ñu ngi xool ñu ngi gis nee naa la su ma bokkoon ci famille bu demee naka su dul noonu du ma fi indi mbokk du ma fi indi ñi nga xam na ni tey yaakaar nañu ñii dañ maa yaakaar Pape mii su àggee nii dakaar dafay tëdd nelaw bu jullee gee ba pare day tëdd nelaw ndax boo waxee mu ne sëriñ Mamoune mu ngi ci man te maa ngi ci moom ah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 allahuma anta awalu fa laysa qablaka cheyun wa anta alaaxiru fa laysa baadaka cheyun wa anta alzaahiru fa laysa fawqaka cheyun wa anta albaatinu fa laysa doonaka cheyun fa kun lana ya awalu ya aaxiru ya zaahiru ya baatinu wa naasirana anta waliyuna wa mawlaana fa ni'mal mawla wa ni'mal nasiir allahuma inna nasaluka bi fatihati lfatihi fatatam وبخاتمية الخاتم أسن الختام اللهم إنا نسألك من خير كل آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما خرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما خرب إليها من قول وعمل allahuma inna nasaluka awfa wala afiyata walmuafata daahimata fi ddiini waldunya walaxirati allahuma inna nasaluka ridaka wa rida nabiyika wa rida alasyaaqi wa rida alwalidain allahuma ajal ma nuhibu fima tuhibu wa tarda allahuma ajal fi ihtiyarika istirarana wala tajal ila ilayka ittirarana ya rabbana ya xaaliqa alawalimi xul baynana wa bayna kulli zalimi wa ajli kulli man ilayna ahsana wa jaazi anna jazaa al ahsana allahumma arfi anna aljahda waljumua wariya wakshifna min albalaa'i ma laa yashuu xayrun allahumma farij an ummati seydina muhammad allahumma farij an ummati seydina muhammad allahumma farij an ummati seydina muhammad rabbana aatina fi dunya hasanatan wa fil aaxirati hasanatan wa qina azaaba annaar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 rabbana innana samihna munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لهينا وميتنا وكبيرنا وذكيرنا وذكرنا وأنسانا وهادرنا وخائبنا وحرنا وحبدنا وطائنا واسينا allahuma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala saydina muhammad alladi tanaalu bi uquda wa tanfariju bi kurba wa tuxuda bi awahiju wa tanaalu bihi raqaib wa usna alxawatimu wa yustaza alxamamu bi waji karimi wa ala alihi wa sahbi fi kulli lamatin wa nafasin bi haddadin kulla maalumin laka ya rabbal alamin allahuma ya ayu ya qayyum ayi qulubana bi xaysi rahmatika wa nawir bi anwari maarif معرفتك وزينها بذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإنك الملك المنان الكريم ذو الجلال والإكرام الذي من دعاك به أجبته ومن سألك به أعطيته أن تؤتيني رزقا واسعا وعلما نافعا وأمرا طويلا ومالا جسيلا وسعة بدني ومعبة في قلقي اللهم يا مولاي ألف القلوب والأبصار ألف بين بيني وبين عبادك الصالحين يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين خلفك أجمعين وهب لنا يا رب قبول سيدنا سليمان وإقبال سيدنا يوسف عليه السلام وإجابة دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما طول أمري وصحة بدني فلما رأيناه أكبرنا وختهنا أيدينا وقلنا ولله ما وبشر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 أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار عظيم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 fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun fi dunya wa salaamun fil aaxirati wa salaamun alal mursaliina walhamdulillaahi rabbil aalamiin amiin alhamdulillaahi rabbil